amor booy fecc tey amor da nga fecc kala ñëw na nga waaj borom tool bu dikk la liggéey na nga waaj Hugo Louga ñëw dinga ron doon dox fii doon tegi dagin ron Hugo liggéey na nga waaj borom tool bi ñëw na liggéey na nga waaj borom tool bi ñëw na dinga ron doon dox fii fii tegi dagin Hugo liggéey na nga waaj borom tool bi ñëw na dafa Mor Kang Kang daan le vingt le vingt eh. le du yomb de teel teel ci moom ci le vingt kay jàkkaarloo caméra waaw waaw waaw Mor taxaw nag bëgg nañ la ci lan ne sëy yi daanuma Seydina Mohamed sëy yi daanuma dama nga liggéey dana bàyyi wax ju bari ji yow mi yaa bari wax bàyyi wax ji a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi xam nga du nuyu ñëpp ñu fi teew xam nga di leen jox seen wàccuwaay man man dab daan bawal bawal laa kon ñoom maa ngi dégg nag dëkk boobu lii bawal bawal bawal bawal barki Seydina Muhammad bawal bawal ci nday ci baay ragaluma la ci dara sa yi nii ngay def nii soo indi woon fii ñuy naan nga jox ma ko man naan ko barki Serigne Saliou loolu noonu jaaxaluma maa ngi woo jam ñaar yëpp un ba vingt deux bàyyi ma kenn incha allahu la fexe xam ñaan yàlla muy borom kattan moom muy maye yàlla na yàlla may ndam xam nga waroon njëkkee dara nag xam nga di ñaanal sama waajur mu jigéen xam nga yàlla na ko yàlla yërëm jégal ko xaare ko àdduna di ñaanal waajur bu góor na ko suñu borom bàyyi kanam ba ci kanam ak kanam ak kanam di wax dara jam ñaaño un ba vingt deux bàyyi ma kenn Mamadou Moulaye Gueye monsieur le maire jam ñaaño maa lay woo ci combat xam nga du ma wax sa Adama Mouhamed Mbaye Moussa la maire Mouhamed Mbaye muy adjoint au bu Diamniadio di ko woo suma doomu nday suma xarit suma deret la kooku nekkul suma xarit wala dara xam sama deret la Mor Mor Kankan dang may may nag ma déggoo ma le déggoo ma le hmm? yaa ngi wax depuis sànq ba léegi ba ma ñëwee man a tekk toog fii leen laa lay soo taxawee voilà du ma taxaw sax di xaar foo ne maa ngi sa kaw incha allahu rabbi jërëjëf Mor Kankan Mor bàyyi jërëjëf sëñ Abdou Karim Mbacké maa ngi ñaanal sama papa mais nga xamante ne nii daal toog moom ndeysaan day si man xool ko rek fii ni moo ngi ne sa daay banque yi bëgg a rey muy muy Père Bada maa ngi koy sant bu wér ak Père Sourou Fall. waaw ak Fallou Ndiaye maa ngi di sant bu baax. sant waa Bawol nag ñi fi di maa ngi sant waa Bawol gépp di sant waa Bawol gépp gis nga dab daan man mool man moolu ndaw laa boo ma joxee pep damay mam ma joxul pep damay mam. man xale bu ndaw laa. ma joxee pep. damay dem boo ma joxul pep damay dem man ma loolu ndaw laa kii mënu ma téye du ma yàqal sama yoon. waaw Mor Mor yaa say morom ñu fi jaar nii bari na yàlla xam na ko Mor Kang-Kang mi war bi sifflé du ñëw maay dem wala déggoo ma nee na moom mooy xale moo war a ñëw war bi sifflé yàlla xam ni fu mu ne ma fekk ko fa Mor mosoo am bis bi. man dama la bëgg a xamalante ni man ñi ngay daan du ñooñu du du. ça fait deux man dama la bëgg a xamal man Mor Wu Ndaw laa barki Serigne Fallou foo taxaw ma fekk la fa stade bi maa ko moom sama stade la. ci noor lañ nekk léegi la la wax. ci noor lañ nekk bépp amul borom Touba la jëndee. ci noor lañ nekk bépp amul gis nga gis nga gab. gab dama bëgg a xamal ne yow neex. dab daan dama koy dab daan ko loolu dafa leer dama koy dab daan ko. Ibrahima Nguer bi ngeen wax la tur bi original la. waaw amul problème man ay Ibrahima Ngere yooyu yëpp safuma man barke Serigne Fallou Mbacké laa la gënal couvre-feu ba léegi couvre-feu ba léegi damay ñaan yàlla yàlla damay contact kii taxuma jóg taxuma jóg man xoolal sama bët dama ko bilaay wala liggéey fa ma ko eggal noo kii dab daan xool fii ne xool damay taxaw xeex moom soo xeexee ma duma la mënoo xeex taxawaay kuy xeex du lii mooy naan nit ñi. yaa ngi mbër yi lay seetaan taxawaatal taxawaatal ñu. yaa ngi mbër yi lay seetaan. jërëjëf jërëjëf. maa nag waa Bawol gépp di sant Abdou Sène ak Ndiaye sama nijaay Abdou Sène maa ngi koy sant di ko wax ne man. combat bi seen combat la nañ ci jàpp boor boor yi nañ ma jàppale gën may borom ku ci mel ni mbay ku ci aas sama mag ñoom Modou ñoom Dan Kebe waa Colobane bàyyiwuma ñëpp di sant juróom-ñaari njëfun paal yi di sant waa Rimaaw di sant waa Refan di sant waa Xombal bu baax di sant waa Touba Tour waa Ndereb bàyyiwuma ba birim jiiraas Joal ñooñu ñëpp maa sant di sant ku ci mel ni Baye Djil maa ngi sant Thiaw Star aw ma fayam Adama Ndiaye moom mooy dooleel aw fayam maa ngi sant bu baax a baax a di sant nag waa mafia bi eh eh am nga open press maa ngi bu baax di jégaluwaat bu baax. soo gisee mu demee nii sax xam nga mosuma ñëw signature contrat mu demee nii mais booy bi dafa bari wax dafa bari wax torop torop torop torop wax na ku ne mais maa ngi ñaan Mor soir bi sifflé taxawal ñu bégal ñu ñu seetaan si incha allahu rabbi yow doo ñëw maay ñëw maay woowaat waa jam ñaan yëpp monsieur le maire Mamadou Moulaye Gueye suma papa suma xarit xam nga di ko ñaanal jàmm xam nga yàlla na mandat bi oyof lool ci yow xam nga lépp lu jam ñaan yi na mu ci yaw nga def Adama Mouhamed Mbaye xam nga adjoint premier adjoint maire ma suma doomu maa ngi lay woo ci combat bi Baba Traoré maa ngi koy woo ci di woo Pape Samba Gueye international Vieux ñoom ñëpp bàyyi ma kenn xam di sant sama gars yi ma àndal muy armée xam booy jum baylaat jaane Cheikh Pouy woo jam ñaajo un ba vingt bàyyi ma kenn incha allahu rabi ngeen ñëw ma feesal stade bi ko ñoom laa koy fekk si maa koy ëpp supporter incha allah